bokki taalibe yi bokki jullit ak képp koo xam ne am nga yéene eh, wuy si Serigne Touba wala nga nekk fa nga nekk di ko santale yàlla ci lii mu sàkku ci nun te nun ñëpp xam nañ ci histoire ni Serigne Touba lim doon liggéeyal ubayd rabbihi wabnu yi mu Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ni ba muy ñaan ku nekk ci wetam sax naan amin nekku foon kon musta sàkku ci kenn lenn ku dul yàlla jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nag lañ xam ne moom sàkku na ko ci ñëpp moom bu doon demande mos na ko def ñu ne demande la bu mu a def li mu sàkk mooy leen nee na cantuk boppam ngir xéwal yi nga xam ne noonu ci suñu bopp xëy na noo ngi koy yéem te gisaguñ ci dara ndax Serigne Abdoul Ahad moo eh, ndab li fees ba tuuru liggéeyu Sëñ Tuubaa mi ngi ne ndab lu fees ba tuuru lii tuuroo ci ndab li nag rembat bay tuuru lii tuuru moom la ñuy taataan noonu di ko naan ku ci nekk nag naan ci ba man di defee ni dara nga ci liggéey bi doo ci dara waaye nee na la taxoon ñuy duy ndab li moom la taxoon Sëñ Tuubaa di ko duy dara jógagu ci ñun li ciy rembat di tuur rek lañ gisagul tàggu suñ sago ak ginnaaw nag loolu am na muy xéwal yoo xam ni moom ci boppam sant na ba tey bind ci ay xaside yu bari firndeel ak cantam nga jàpp ni sax sëñ bi day dem déedéet day feeñal lenn ci xeetu jaamu yàlla wi muy jaamu yàlla ci delloo yàlla njukkal ci li yàlla wax ni wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis xéwalug sa borom gi bul ko bu waxtaane ko léegi nag buy waxtaane xéwal yi ko yàlla y may nag da ngay dem ba ci yàgg nga ni si tubaab mii sax nag moom lii lu mu doon fekk na moom dalay xamal ne lii bu mu la yàlla ma ko may ma di ko ci sant di ko biral ndax yàlla ko wax loole nag ginnaaw moom lan dem ba xamuñu nu mu toll mu dem a dem a dem ba moom ci boppam nee na lott na ci lot gulet nu dégg mu lott ci dara gulet mooy tëlee na ci wala bu mënu ko ni mu ko bëggee dëgg-dëgg gulet mu lott ci dara mooy cant gi mu war a sant yàlla saa yu 18 safar ñëwatee ci kaw suuf muy fukki fan ak ñett ci weeru safar saa yu ñëwatee muy weeru màggal fukki fan ak ñett ya ci safar di weeru màggal gi nee na ni mu war a sant yàlla sant na cee sant sant waaye dafa bëgg ku ko ci dimbali képp koo xam ne mbégteem moom mbégteem Serigne Touba sa mbégte la mbégte yow maanaam lii bëggal Serigne Touba la bëggal maanaam mbégteem Serigne Touba da ci am mbégte nee na bu boobaa mi ngi lay sàkku ci yow nga santale ko yàlla fii lañ ma sa déggee mu sàkku nit ci nit dara te loolu ci nit lañ ko mën a sàkku nit ci moom nga loolu rek mën a sàkku ji loolu rek ngeen nga santale ma yàlla ci bis bi ndax li ma ci yàlla defal kon nag loolu ndigal la lu jóge ci ku tedd ki ñun ñëpp nu jàng ko xam ko muy lu leer nañ ngeen jàngaat yoonu murit ndigal la lu jóge ci Sëriñ Tuubaa ak càkku téef la rek bu dee taalibe moom jàppal ni ndigal la ci yow bu dee mbokkum jullit mu mën a doon nag jàppal ni day sàkku ci yow waaye taalibe moom obligation la ci moom ci màggal gi bokkut ak lim naan nag ma ci dimbali sant li ci yàlla loolu ñeneen a tax muy wax ñi ñu bokkal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñëpp waaye ku ne aslamtu nafsi moom obligation la ci yow muy sant ko yàlla ci bés bi ba mu koy sant itam yemul ci sant leen ma mais daa am nu ne santale leen ma ko yàlla nii bëgg ku ma ko santalee yàlla loolu lu ñu bind la teg fi ñu mag ñi fekke ko ñëpp xam ko nan la wax ne nañ ko santalee yàlla mooy ci bernde ak jàng alquran bernde moom ku ne xam na ko dootuñu ñu leeral baat bi mu ni li ko tàmbalee ci ginaar ba ci gileem li ko tàmbalee ci ginaar ba ci gileem ku am ginaar defal ku amul ku am nag ba ma a def gileem defal boo mën a def yëpp nga def léegi nag furu yi yaag ya ca bokk yëpp mën naa dugg ci bernde waaye nag mu bañ a doon loo xam day nuru xeetu yàq lépp na doon loo xam ni doomu aadama yi yàlla bind dañ koy jariñoo bu doon itam mbirum VIP mooy lan mooy yaa ngi berndeel ay nit fii ci tuuba wala fa nga nekk ci xeeti bernde yoo xam ni ñoom wér nañ buñ noppee fa lañ koy bàyyi duñ ko jariñoo nga mënoon leen a defal loo xam ne dinañ ko jariñoo dara du ca yàqu ñu jël ko ba noppi la ca des nga yóbbu ko ca ñeneen ñu jariñoo ko berndeel ñeneen kon yóbbalu tey bi waajal màggal ci Saxum Touba seetu murid yi yóbbalu bis bi tey yóbbalu bu màggal lañ koy tuddee waajal màggal ak yóbbulu bu màggal lii may def nii bis bu nekk laa koy def su 9h guddi jotee bu ñu xëyee rédivisé ko kon lii ma ciy baaxee sama bokki taalibe bi di ko baaxee sama bopp mooy nan xoolaat mbir mi ni ndigal la waaye ndax bi mu ko diglee dañ ni léegi li tax ma indi tey li tax may waxtaan tey lii introduction rek la mais li ma bëgg indi moo tomb bi ñu war a tey ci laa jëm mooy weeru safar. ak li nit ñi tàmm wax naan safariyaat ak damay safar waaw ndax sëñ Tuubaa bi mu toogee ci njaareem keroog lu jiitu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar woote na taalibe yi leen damaa bëgg ngeen waajal 18 safar ndax siñ bi waxoon na ko kenn ku la ko waxul dëgg kenn ku la mën a wax ni sëñ bi néew ma nag lii baaxul wala dama koy tere dama ni man li sëñ bi wax fa laay tàmbalee fa laay yem loolu moom am na fayda ak fu lu di wax loolu mooy lan sëñ bi lu jiitu 18 safar ca njaareem ba mu santaaneegul màggal gi wowul nit ñi ne leen damaa bëgg ngeen li weeru safar bii damaa bëgg ngeen waajal ci loo xam ni da leen def ay bernde def ko safariyaat sëñ Tuubaa di bind ko waxu ko ko xiir na baax na lool waaye xiir ba xiir la ca gën muy xiir ci lañ la digal kon safariyaat yi ñuy wax muharram moo ko jiitu sëriñ bi mënoon na ni muharram mi waajal leen ci safar te lu tax mu toog ba 18 safar lu tax ñu naan altine talaata àllarba tey la fukki fan tey la fukki lu tax mu jàpp fukki fan ak juróom-ñett ca la waxee ni muy deflu ca la ko deflu la muy deflu nee na ci 18 safar la bis bis bu ñëwatee saa yu bis bi ñëwatee waaw mënoon na saa yu weer wu ñëwatee wala saa yu gaaw ñëwatee wala saa at sàng waaye dañu saa yu bisu 18 safar ñëwatee sëñ tuwaay wax de man waxuma kon néew la bis bu nga xamante ni bii moo ko jiitu benn fan safar ak ñaari fan waxu la loolu daf lay bis bii ma nekk nii bis bu ñëwatee ci kaw suuf kon nag nan tënku ci ndigal ndax kat fal id fal idnu chartun li qubuli sha'ni maanaam loo bëgg-bëgg lu baax nee nañ lii tax ñu nangu lu baax li def day fekk nga am ci ndigal yàlla loo koy defal daa fekk mu digal la ko koy defal yàlla rek daa fekk mu digal la diine lépp di ay ay ay ndénkaan kon nag nan ci bàyyi bu baax waajal màggal ci Saxum Touba ak yóbbulu bu màggal tey safar lay wax nit ñi di safar dinaa ci indi benn misaal kilifa gu mag ci wetu mbuur la nekk yor fa àll di liggéeyal Sëñ Tuubaa ak daara jamono yii danoo gis seen waxtaan ba egsi ci mbirum safar ak ni ko ni ñi waajale nu waxtaan ci lu mel ni may wax rek mu man di li ma ci gën a jaaxal sax fii ci mbur de daaw am na koo xam ne li mu def ci safar li ñuy waajal safar safar yaat ñuy wax waajal màggal ëpp na nee na xaw ma nangami million ay million daal mat na ko ci diggante ay bernde nee na ba ca ñi nga xam ne nag waxaguñ ne aslamtu nafsi jébbalooguñ sëñ Tuubaa waaye ay bokk yu lañ am yeneen wasila dañoo bokkoon ca bernde nee na ñoom bi màggal gi ñëwee biñ ne suba la ñu ñaa waaj dem ñu ne ah nun de nag màggal nan ba nopp ndax li ñu def fii moom wax dëgg yàlla mooy màggal rek màggal xoolal ñooñu léegi li commencé dugg seen bopp mooy ñoom lañu leen defal ca safar ay murit defal leen ko ca mbuur ci ay bernde tax na ñoom ñu bëgg daal di changé ci seen xel li taxoon sëñ bi joxe ndigal mooy bisub 18 safar daal di jàpp ne daal kenn mun a weesu lii ñuy def mooy safar yaar yi ñu doon def bernde yi lu jiitu 18 safar sëñ bi loolu ku ko xool sa digg sëñ Tuubaa xam nga ni kon yaa ngi yaa ngi tooñ sëriñ bi ndax yaa ngi tax ñeneen ñoom di jàpp ne fàtte nañ sax tax 18 safar ndax yow li ngeen defal bi 18 safar daatan jiitu kon loolu na ci bàyyi xel beneen bi ci des mooy dama koy wax at mu nekk tey jëkku ci damaa bëgg yàlla nu dem ba balaa addunay tukki nu dem ba kër gu taxaw ci kaw Sénégal bu màggal jotatee bernde nekk fa man de waxuma ko ndax dara maa ngi tuub di jéglu waaye yàlla xam na ko am nay kër yu nekk ci Ndakaaru ak feneen yoo xam ne ma màggal jote danaa fexe ba la ma man képp laay kàttan ak nu ma ko mën a lijjantee ma fexe ay ganaar dem ci ñoom te ndakaaru gee loolu li mu jublu mooy lii xalaat bii muy xalaat te yàgg koo wax mooy yow li nga nar a safar yaate di ko waajale safar muy ay million wala muy leneen waaye waaye téye ko ba 18 safar koñ ba nga dëkk ca ndakaaro wala ca Mbuur wala ca Kaolack wala ca Ziguinchor wala ca Fuuta Tooro wala Wuro Soogi wala bar bar foo mën a dëkk Ndar Mbooro Meewaan foo dëkk Thiès Simla Joal foo dëkk Somone foo mën a dëkk nga fexe ba boo fay jóge wala yow mooy yàlla ma ne gan nga fexe ba teg faw nag ak teg fay bernde boo demee Touba itam bu bis ba ñu rey nag wa mu mel ni ñu nekk Touba ak ñu nekk Somone wala nekk Joal ñoom ñi ngi am bernde loolu loolu ñu séntu yow def nga ko ci bisu di sawar loolu la ñuy séntu ci nit ñi buñ ko defee yàggee def ci mbaaxu yàlla danañ dem ba Sénégal dana daj ku màggal si Touba ak ku màggal si ñëpp danañ am bernde loolu loolu lool loolu mooy lu kenn mun a dindi moom te bu boobaa yaa ngi def li sëñ bi wax ndax foo nekk te di ko def itam mel na ni yaa ngi koy defee ci Touba su fekkee ne am nga ngantul jëw Touba kon loolu lu mot a bàyyi xel la waaye nag li ma jàpp ni moom la yor def ci safar bu dee safariyaat waajal màggal mooy fexe ba def ay rencontre dajale xale yi ci quartier yi daal di loolu sax mën naa nekk dajale xale yi woo leen ñuy waxtaan nan lañ war a màggale ak nu ko sëñ bi ak ku dem Touba noo war a def di di def ay waxtaan ci quartier yi waaw kay su ko defee nit ki balaa dem Touba dana xam nu ñuy màggale nu ko sëñ bi ak lu ñu war a def Touba loolu la murit yi war a def ci quartier yëpp ñu yor daayira yi ñëpp def ay rencontre sensibilisation pour sensibiliser ñiy dem xama xamal leen luy màggal ak nan la ñuy màggal ak ku fa dem nooy def lii moom la ñu war a waajale màggal loolu mooy li am at gi xam nañu farata la mës ngeen gis benn ñu ne nañ waajal at gi fii ci ci noo dem bala noo dem màkk wala ñu dem màkk at jotagul nga ne nañ waajal at gi rey xer wala ku ko mës gis day dem ba egg loo xam ni day xaw a nuru bidaa bidaa nag mooy loo xam ne rek lu ca bokkul nga dugal ko ci te kële ko dugal kële kële ko digal boolewu ko ca jëf ju baax lay nuru nag moom lañ koy jàppee waaye nag ki ñuy waxtaanal nun fii ci Saxum Touba mooy ki nga xam ni nangu naa dégg liñ koy wax te xam ni njariñam ak sunu njëriñ lañ ci jublu képp kuy bëgg nag aalu ci kaw nit ñi wala wane ni nangam dara nekku ci noonu kii dafa compliqué bu boobaa bu ñu demee ci sëñ bi ah dinañ xam ba xam-xam lii may wax ak yow li nga wax lu ci sëñ bi jàpp loolu nan bàyyi ba egg sëñ bi moom nan bàyyi egg sëñ bi waaye li wér daal mooy li ñuy dépensé ci ay safar di ko def ci quartier yi di togg di rey nag di rey xar damay waajal màggal sëriñ Tuubaa defu ko diglewu ko woon li sëriñ Tuubaa doon digle mooy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru màggal li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem yow mi nga xam da nga ko am ba di ko def waay waay baaxeel keneen mu mu jënd ginaar dinaa ñëw nag ci li nga xam ni mooy ñi nga xam ne dañuy màggal ba noppi reyaluñ Sëñ Tuubaa ginaar sax ganaar sax reyaluñ ko waaye li ñu préparé màggal moom mën naa rey gileem loolu dañ ci ñëw ci biir ñëw ak yeneen nee leen bis bu nekk dinañ am waajal màggal ci Saxum Touba muy tomb boo xam ne yóbbalu màggal lañ ko tudde tàmbali na démb ci ajuma yi ba keroog ñuy egg ci safar incha allah loolu mbokk yi maa uridu illa al islah wa ma tawfiq illa billah maa ngi balaax ñëpp di balaax ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu lii ma leen wax daal mooy safar gi daal ñi koy def Ndakaaru ñi koy def Touba ak ñi koy def Njaaréem ak Cees ak Ndar ak ñëpp loolu am na leneen loo xam ne moom laa ci bëgg a dolli mooy dëkki àll yi ak yeneen yi Ndakaaru ge am na dëkk yoo xam ne am na dëkk yu bari ci Sénégal xam ne bu ñu añee du ñu reer waaye léegi boo déggee ba di safar nag nga bernde leen bernde boo xamante ni bii lépp ne góoj yaakaar naa ne jooju tuyaaba ken xamutalul. dëkki àll yi xam ne ku ne xaw na nawet bi kenn xamagul nu mu mel te ba loolu amagul sax ñu ngi ci ay ngi ci ay situation yu xaw a difficile sa dëkkub cosaan wala dëkk bu mën a doon yàlla ma ne la gan fexeel ba yónnee fa ay nag wala ay xar akub ceeb ni leen bis ba nag laa wax ñu def ko lii moo li war a am waaye nag lu jiitu safara fenn sëñ bind ko fa waxu ko defewu ko woon ku degg te féetarul nag kenn du yor yot di la di di di jëflanteeg yow déedéet li war a am daal dinañ la ko wax bu fekkee nag dangaa bëgg a dunde sa murit noonu nag wala da jàpp ne murit gi itam nun nun rek koy dunde ah yaag caag noo balax ñëpp di balax ñëpp di ñaan ñëpp tawféex jërë ngeen jëf alhamdulillahi alkarim silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma